سارو رب الخديم سيدنا إمام الله المختار عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وعلى البيت الهدى وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين نغي فاسيني ييك سونو كادو واي كادو يي نك اجي واخجي دا فاي جوتالي كادو كليفه بو باخ بو ماغ kàddu kilifa gu am solo ci moom mii nga xame ne mooy jottali kàddoom njàlbeen bala ñu ko jottalil kàddoom xanaa di ko ñaanal yàlla yal na yàlla sunu boroom mi nga xame ne moo yor jaamam di def di def ci moom li ko sob yal na sama boroom ba guddal fanam bu ko guddalee yal na ko toftalal wér defal ko jàmmi biir jàmmi biti jàmmi xel jàmmi yaram jàmmi xol jàmmi yoon jàmmi biir néeg jàmmi biti néeg jàmmi biir kër jàmmi biti kër jàmmi biir dëkk jàmmi biti dëkk muy sunu mag di seydina laahi kay sëtu seydina limaamillaahi almahdi alayhi salaatu wasalaam kay doomi bàyyi seydi caw laay kay doomi seydina maam alasaan laay kay doomi seydina baay abdullah kay doomi maam ibrahima seeni kay doomi Chérif Al Ousseynou Rouwla kay doomi Mamadou Lay seeni kay doomi Imam Mouhamadou Bachir kay doomi représentant de la communauté sunu baay Mouhamadul Amin kay doomi sunu baay maam Njiin maam Libaas kay doomi sunu baay Imam Makhtar waaye kay doomi sunu baay donte lay jiitu nañu ñoom ñaar maam Alassane ibnu Seydina Ababacar bu ñu ko nuyoo di leen fas yéene jottali ay kàddoom bëggoon naa cee teg nag koo xamee ne sketch bi fi jàll moom xam naa ne moo ko liggéey ngir sànni ma ay xeer waaye ma tudd turam rek muy ku ñu naan général fa laa yem dinaa seet nu may def xam naa ne dinaa préparer ay xeer yoo xamee ne bu soobee yàlla bu ko dalee dina xam ne sketch bii muy juyeloo nit ñi dinaa ton euh, di nuyu le maire de la commune de Ngor de Ngor village les autorités coutumières, imams et habitants du, simple village nommé. Allah dit mi nga suis fi représenté ci di Allah yal na yàlla yeesal yërmande ak njëgal ci moom muy jibi njaay laay moom Alaaji moo symbolisé groupement central et la fédération des daïra layen di nuyu Papa Ndiaye l'infatigable représentant du Khalif des Layen au sein du Saint Village que j'ai nommé Ngor le Daïr Layen du Saint-Village, le comité de gestion du Daïra, Sohna Adia Kinelay, fille de notre regretté Khalif Seydina Abay Abdullah, Diziara ziyaara Magal màggal tey fàttaliku Khalifa Baye qui nous a ouvert lors de son khalifa les portes de ce site ô combien majestueux, ainsi que Seydina Mohamed Lai Laye Bayran Moubachma et leurs compagnons, chérif Al-Hussein Rouboulahi, Imam Mohamedou Bachir, Ibn Sina Ababakar Lai, Babul Uloum, en faisant un clin d'œil à Mam Ibrahim Seyni Lai, nos respects iront aussi à nos chers pères, Seydina Mohamedou Amin, Seydina Bibas, Sayyidina Mohamedou Mohtar, Al-Imam. Nous saluons aussi Souleymane le Magnifique Souleymane Mongor mi may Souleymane le Magnifique di nuyu soxna Diara, Diara cawlaay bintu Seydina Bay Abdullah mi fi tok tay waye di ko ci jotaayam bi ak toogaayam bi Adja Kiné waaye di fàttaliku sa mag ja walla boog defe naa du ma dugg ci âge waaye doomi suma bàjjan ba te ñu koy woowee cawlaay ndax taxawaayam ci fii moom defe naa am na lu tàmbaliwoon na ko may bañ ñuy fàtte démb ngir tey Adja alasaan ak seeni sa teewaayu tay bi ak ñi nga àndal ñu ngi ciy sant bu baax a baax soxna antaan waaye di bàyyi xel nag ci ki nga xamee ne daanaka boo nee camp de vacances moom mooy jëmmi camp de vacances bi Moussa Laye mi ma tuddee le camp de vacances madame Sekmi, Nekasawet, nekk directeur abalay mu les moniteurs et monitrices les imams les techniciens du son et les médias numériques les parents des, des vacanciers qui font vivre le camp les équipes de sécurité ceux qui habitent le site de la Sainte Grotte de la Sainte Lumière du meilleur des créatures paix et salut sur lui, sa sainte famille, ses proches et ses compagnons. Mais surtout, et surtout, magnifier son calife, celui qui détient le sceau prophétique du Mahdi, que sa personne et son califat soient au-dessus de l'humanité tout entière, ceux qui savent et ceux qui ignorent. kon ma tudd sunu baay Mouhamadul Makhtar al Khalif ibnu Seydina Amar Mandione Lahi saahibul kiraam di ñaan sunu borom mu dolli wéram yàlla dolli aafiyaam dolli tawféexam sunu borom ba sàmm ko bàyyil ñu ko ci kanamu njaboot gi moom mi aaw ay magam te ma dund loo xamee ne man mii ma doon ci témoin mbëggeel gu dog bu ko ay magom bëggoon jiital naa ca bàyyi Seydi Cawlaay mi tax tey ñu ubbil ñu fii ndax ci xilaafaam la xewe waaye teg naa ci Seydina Mamadou Lassane teg ci bàyyi Abdullahi waaye teg naa ci ñoom Chérif Ousseynou Laye ak maa Ibrahima Seen yi Mamadou Laye ba ci sunu baay yi fi nekk ñu ñu ko mas a fonk mas ko bëgg moom xalifa bi ne bi fi nekk tey di sunu bàyyi moom du maxtaar waaye muy koo xamee ne mu ngi ci biir de toog waaye bëtam a ngi ci diine ji noppam aussi mu ngi ci diine ji te itteem bépp waxatul jëmmi boppam barki alxuraan li may wax xam naa itteem ak exécutif bi mooy le pouvoir étatique moom xalifa bi bëgg-bëggam ak yéeneem mooy ñu fonkal ko ay rakkaam yëkkatil ko ay rakkaam ci góor ñi ak jigéen ñi xormaal diine ji jox ko place bi nga xamee ne naka jekk moom la ko yàlla jox nag ci daje démb bi rekk ki yàlla teg tey ci bopp réew mi muy son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa wax ne bi muy tàmbali day fii la bëggoon a ubbee ay seetam ci kilifay diine yi nee na li ko waral benn mooy ndakaaru mooy njaatigéem ndax ndakaaru ñun ñoo fi war jël di dafa war nuyu dogal bi yaramam sutante mu ne ko kon ñëwal ma gis la yow rekk nga bañ a ànd ak délégation ci xormaam ak yaram mu delloo kàddu gi ne ko wéy jur du fatu yaramam sutante doom di forcé pour gis ko damay dellu ginnaaw dontale maa jiite réew mi ba keroog ngay am aafiya ak tawféexu recevoir ma ma sol sama dàll fekk si la loolu la biral démb ba tey ji wala ba démb bokk xalifa bi yabal rakkaam sunu bàyyi Mouhamadou Ramen Lamine mu représenté ko représenté diine ji teeru ko ak délégation yi ñoo saafunte fa ay waxtaan ba yewi jot ku nekk yewee kon maa ngi leen di xamal ne xalifa boobu ñu ngi koy ñaanal yàlla aafiya ak tawfeex moom sama mag mooy wax de parce que daf ma yóbbante amaa am na yu may fàtte waaye am na ligne de conduite boo xamee ne sëy naa laay moom la ma dénk pour ma jotal leen muy xam la njëkk ma wax ne ma Abdoulaye ma nekk laay mu ne ma yow noo bokk lépp doo nekk ngor nekk ca grotte ba 2010 ak tey lu ne nga daj ko te mooy kilifa gi nga xamee ne cérémonie am na fii mu jël rajo bi daldi ne ñu ngi gërëm sunu rakk abdulaay mu sama bàyyi raan at at bi mu koy wax fii ci appel masuma fee dégg jërëjëf waaye <laughs> Papa Ndiaye bi <laughs> masuma fee dégg Papa Ndiaye ngi nii moom mi jiddi ma ñëwee moom laa fekk masumaa dégg Papa Ndiaye jërëjëf waaw dafay baax nag waxuma ko pour man man moom laay maxtaar baax na man manaaw ma solo waaye dafay baax ñu mel ni jëmm yii ak daayira bi ko wër li daayira Ngor ak institut wala boog organe bi nga xamee ne ñooy gérer danay baax léeg-léeg ñu leen doom jërëjëf waa Ngor jërë ngeen jëf daayira Ngor jërë ngeen jëf maam ab Ablaye sàmba bi muy taxaw fii ci strate bi ci jamonoy sama baay Sidi Thiaw doon chef de village Ngor doon kilifa Ngor te kenn du ko romb doonoon kilifa goo xamee ne ku mu ne du toogal da toog mu taxaw fii sama baay Ablaye wax def waxtaan yu ubbi ñu jox ko kàddu duma ko fàtte maa ngi toog fële ci suuf estrade mu ne mu ne sàgga bi bàyyi Sidi Thiaw lay waxal de barab bii de mu ngi nii jox nañ leen ko seeni loxo xoluñu gisuñu ba dee nag dañ ko war a morcelé in dëkk ka mu ne ko sang bi nun noonu leen ko gën a soxla loolu mooy duñ leen bàyyi ngeen morcelé ka dëkk ka nun nu toog ñun waa gor waaye ba dee jaamukaayab yàlla mu ngi noogu seeni loxo génn nañu si Baye Ablaye Samba son maam la man ci sama ndey ak sama baay mu nga mu nga kërug dëgg ga yàlla na yàlla leeram moom nag ba tey ba ci jaraaf yi fi mujj ak aayima yi fi nekk ak bokki ngor ndomba tànk yi yépp ba ñu mat amu ci kenn koo xamee ne kaddu googu teggi nga ko ñoom ñëpp dañoo wommatu ànd ci wormaal sunu sër Adja Kiné taxawaayam rafet lool ci dëkk bi kon bu ñu demee ba camp de vacances di fi am waaw dëgg la de dab nañ ma sax ne ma waaw barab bu toll nii ci ay ngëneel ki leer barab bu toll nii ci dayo barab bu toll nii dama fee toog de waaye am naa lu ma mën a wax te rusuma kaa wax te duma ko jom barab bii sama baat ci kaw te tiituma jaxasoowuma dooy affaire ay jinne yooyu man gisuma jinne masuma gis jinne li gëna a leer musuma gis jinne wallahi wal kitab dund naa fi leneen mais du lu ñuy wax waaye barab bii barab féetewu ko kaw ci barab bi àdduna amal abadan sama baat ci kaw barab bii bu sutul barab barab du ko sut ñu ne ma camp de vacances di fi am man leen waaw ndax dañoo am ay pàkk te bariwul waaye fii nag li tax ñu fiy def ay activité pour nit ñi xam ne barab bii dafa am borom ndax prédateur foncier yaa ngi taxaw say naa moo may wax de mu ne fi nga war a occupé boo ko occupé wul saay-saay siy ruur suuf si dugg fa jaxase ko defe ñu ngi wax yeneeni barab yu nu am ndingalaa ngi fi ngejja gaa ngi fi man ragaluma barab jël ay sunuy section groupement central wax ak fédération ñu ne nañu jël sunuy xale nekk nañu vacances ñu utal leen festivité de vacances ku ne gis na li xew ci colonie yi lu ci bari ay way lañuy ñuy yeneen man ni jaaya yaay ni ko bàyyi ba laay daan waxe waaye ñun nag ñu jël suñuy xale jàngal leen diine fukki fan ak juróom li fa xew léegi nii ci présentation yi xale yi def ku mu ubbiwul sa bët dootoo gis ba faw ndax kër rasulullahi rek alayhi salaatu wassalaam moo attan wuuf lislaamu àdduna waaye wuuf ngëm-ngëmi waa àdduna dontale ki ko weddi sax moom rasul da koy wuufaale ndax mooy rahmatan lil alamin moom lu ma sëy naa wax mu ne ma ngaa xam ne bërka démb dem na fa di fàttali ci xutba yi nga xamee ne moom la fi sang bi bàyyi lenn lu amoon ci diggante waa kër maam borom touba ak waa kër sang bi rasul sallallahu alayhi wasallam sayidina imamillah mu lu leetar ca ña xamoon araf ndax mom du bind boo bindee du ko jàng waaye baxar ba minal jinal si dina ko tari mu daldi ci yónnee ne yéen ak waa kër googu may dégg muy waa kër cheikh amadou bam doomi ndey ngeen ci diine doy na ci ay wax sayna ne kon occuper place yi ci lii moo gën bàyyi ko fi ëllëg ñu dégg ñu fiy dugg di morsale te fii de ku fi dugg yërëm naa la de te wallahi du ñun lai ñun laay ñooy teg ñooy dal sa kaw waaye di nga gis loo xamee ne yow mal xiyaam nga koy nettalee ndax dootoo taxaw kaw suuf yow nag ak koo mën a àndal ku ñemee bisimilah barab baa ngi man maa ngi toog ngor a ngi lay déglu diine jàng lay déglu xalifa baa ngi ne tekk di la xool barab yii 1883 bi maamam taxa fi naan aji bu daayala may laaj tey ñi peuplé dakaar fu ñu ne woon na ci na ma ci kenn wax rek moment boobu foo ne woon wala foo sa maam ne woon sëy naa nee na xastewul xuloowul waaye dafa bëgg ñu delloo mbir yi fi mu ne woon rek maanaam ñu respecté nit ñi ci seen ngëm sëy naa nee na ki gëmul dara sax amuloo pour wax ko sëy naa nee na ndax sunu bokki chrétien yi waa jàngu bi ndax nit taal na rajo ba télévision dégg leen ñuy wax ci kër jàmbur lu soo sëy naa moo posé question sëy naa laay mu sama baay Abdoulaye nee na ndax mas nañoo dégg waa jàngu bi sànni kàddu ci këri diine yi safar jot na maam boroom Touba dugal ci réseau sociaux yi léegi nga dégg waa ju jóge fële ne dem màggal araam na walla ndàngam walla nàngam waaye ma wax rek la sama waa ji ma daan toogal fii Aliya yaayam dem Makka di raay euh, maxaama maam Ibrahima benn naar naka xaraam mu naka si aw daal di continuer Ibrahima ah, waaw xaraam si aw ci waxu ni lëgu maanaam ci yow araam na mais man dama koy raay ba xam loo ma mënal <laughs> waaw ñu ne gàmmoo ngi ñëw nga ne nga ne gàmmu dafa amul nangam dafa araam si aw <laughs> waaye bàyyil waa seen gàmm bàyyil ñaseen seen gàmm bàyyil kuntu kuntu seen gàmm bàyyil euh, sekkeenu euh, canaba seen gàmm bàyyil bàyyil bàyyil màggal appel a ngi ñëw yow woote woo ki woote boo ñemee yow demal nga jëlal ay sor rek ñeenti malaan nga yëg ci tund wi gën a kawe yuuxul baat bi rek aji boo daay la <laughs> bala gaa daaneel di nga xam ne du lu nit di wax nii simple ki nga wax nag 1883 ak tey mu ngi nee tëdd ci booru géej géej ngi toj fu ne bàyyi nga dégg ne Moussa randand géej xamoo fu Moussa ne xamoo fu réew ma ne nga gëm ko ba sañcee xeex waaye nga dox ba yoo gis fi ñu randale géej nga pattar ñii su ne non géej gi randuwul ah ku la jant baa ngi nga xool ko ne jant amu fi dañ lay dañ lay seetaan rek daal di continuer ñun sunu yoon kon sëy naa nee na nanu bàyyi ngëm yi fi mu ne bàyyi ngëm yi fi mu ne waaye ñu nit li ñu téye nañ ko téye xale yi nag wan nañu ñu leçon léegi rek liñ ñu tëje nañ ci bàyyi xel ñaar la mooy réseaux sociaux yi nga xamee ne bàyyi njiin moo ko cotisé ba ñu def ko daldi may jël def ma ca waaye baax na ba ca des mooy sëy yi xale bi mujj wax nag moo ma daaneel sëy yi dëgg la de jigéen ñaa ngi sëy waaye ñun ñu toog fii léeg-léeg ñoo ne ñaanal ma léeg-léeg am ku la déey da mujj ru mujj ruus baa nga yéemu goro day taxaw goro day taxaw ne sama doom bul dugg ci ne bul aye bul joxe dépense mën nga ko war a jox may laaj nag yow goro bi bàyyi xale bu góor bi ndeyam ndax noonu la la defoon su dee noonu la la ndeyam defoon rek nga wax ma nanu bàyyi xale yi nu sëy te nun parent yi ñu génn ci bu ñu bëggee sëy yi dox waaye li mu terminé nañ ci bàyyi xel man lay Thiaw man sama dépense bariwul man ay cent 150 laa yor mille i 1200 boo ma tegee problème mu ceenu ooru 2 millions ne la wóor ne indil nga ma coon ndax dinaa bind lettre ba bataaxal ne bàyyi njiin yoroo foofu 200000 yónnee seen naa laay ne ko grand yoroo foofu mille te damay dajalukat dajal parce que damay bañ a tudd tur wa maanaam chiffre ba nga ma jox laay bañ a tudd. suma ma ko dajalee daw ñew xeppal ko dal di ñew tok nak ak sama kala tok ñu naan sa way sëriñ la de ci kërëm ko fa dem fekk yo suma ma dañ na a genou fe nga dem a biir bi bu génné nak doon abo ñu naan sëriñ baa ni fekk guddi bëgg dé kon li rek lay fatali sa bopp lool nak maa ko ci njamba Seyna wax ko Seyna daf ma xamal ne ma mu ngi ñaan yalla li mu ñaan mooy baayam xalifa bi teg ci ay rakkaam waaye yonnee na ñaan ki ñu naan général comme nag damaa ne ci komba duma ko tudd baat bi rek laay tudd la ja des mooy mu ngi ñaanal mbooleem ay frère am wallahi loolu la ma wax ne ma nag Abdullah ma ne laay mu ne ma man xaw ma waa kër diw ak waa kër diw ci kër gi man li ma xam ma ne am ah, mu ne ma mooy njabootu Seydina Limaam alayhi salaatu salaam amul kenn kuy génn te ñun ñiy bokk ci njaboot gi nanu xam ne taalibe yi ci njaboot gi lañ bokk amul ñun ñi nekk fii taalibe yi nekk fii njabootu Baay lay mooy ñun ak taalibe ahlu bayti ak taalibe yi ñooy njabootu ali Limaam alayhi salaam mu teg ci nag ne ak bépp jullit bu nangu dogalu yàlla na nga xam ne dugg nga ci njabootu Seydina imaamillaahi mahdi alayhi salaatu wasalaam xayru xalqillaahi seydil awalina fi lmashriq wa seydil alamina fi lmagrib واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم امين نعم. نعم. امين واخون نما ني بو نيان جوتي نغا جانغ نيانو سا مام نياتي فاتحه نياتي اخلاص نياتي صلاه الفاتحه من ما عبد الله منك لاي من ما سا باي دا دان واخ لو ام سورو نانا نييب نيان ndax am na kàddu wala borom làmmañ woo xamee ne bu ñaanee yàlla nangu te xamuñu kan la ci mbooloo mi góor la wala jigéen mag la wala ndaw xawma fu mu ne kon na ñëpp jàng nee na bu ñu paree ñaan gi nanu ko yéene Seydina Mouhamadou Makhtar xalifa bi moom nag moo am pour yéeg ba mu àgg ci maamam waaye ci loxoom lañ koy teg ginnaaw bi ñu àndeek sunuy bàyyi yi ko féete suuf di ay rakkaam moom Seydina mu jël lépp yéeg ba ci ñoom jox leen ko ñu àggale ko ci loxol sayidina muhammadu maxtaar ibnu sayidina manjoon ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha amin waxoon na ma ne bu ñu àggalee imam bu ma fi fekk mu tëj ñaan bi kon nag imam mahtar mu ndak mu imu guy mariama layen juma ja nga xamé né mom la yont yalla isa redon mom moy tej ñaan gi la Israel. woon duma ci wax bal nii mu tëje ñaan dama toog fii jàmm yàlla fekk ma fi ne ma ni ñuy tëje ñaan iid bu ñuy julli iid manaa ñu ne ma ñun damm nañu li bàyyi lay daan wax alayhi salaatu wasalaam li yoon yàlla saa daan wax alayhi salaam li Seydina ma daan wax alayhi salaam ba ci sunuy baay xamal nañ ma ne sama pap maam ji noonu lay ñaane mais du ñu ko jotalal ni mu koy waxe ndax ñun ñëpp dañ naan la eh, déedéet déedéet déedéet abadan du ee eh. ma ma bi ma ko laajee ma wax ko mu ne ma du noonu ma ne ko nan la mu ne ma la إلى خا إلى لا هو هو لا هو هو محمد رسول الله صلى الله عليه لا إلى إله إلى هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو dégg لا الى خا الى Allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi